daal sëriñ bi mi ngi ñaan sëñ Dame Diop nga jottali ko ay cantam ak i ngërëmam ak fedd li li leen yàlla boole ndax dañoo séq njaboot gi kenn ku ci ne daa am wet gum féete njaboot gi waaye mi ngi koy dollee ñaan fa mu féete njaboot gi it gën a woyefal loxoom fan yi ñu toll ñu baree ngi jàmbat njàmbatuk cant rek la ndax lu ñuy jaay dana am ñu yàlla def luñ ko jënde waaye nag buñ sañoon it mu wàññi ko suñ doom yi yit fii ñu leen di yabal it ñu fay xamlu ji it sëriñ bi nee na yëg na ñol ñol ji ak ñorumtu bi lum ca mën na ko def lum ca mënut it na ne mënuma ko ndax kat nit war naa jàng yaar xam naa ko ak xawma ko ku ne xawma ko des na ko xamal waaye bu ne xam naa danañ ko laaj te léeg-léeg laaj ko loo xam ne du ko mën a xam war naa jàng xawma ko war naa jàng it mënuma ko mën naa ko ak mënuma ko suñ la waxee loo xam ne man nga ko nga ne mën naa ko ñaan yàlla mu setal soo ko mënut tax xam nga ne doo ko mën léegi nga ne du doon léegi fi may jeexale euh, Senghor waa Kébémer suñ mu suñ maamun moom da day wonte di ko tudd ay tur waaye dana tudd seeni tur waa Kébémer ak la ko wër dafa mas a dem ñu laaj ko ab tëli laaj ko courant ak dispensaire mu ne leen dispensaire bi moom day daal di sotti bu ci yàlla àndee courant bi ca kanam tali bi it ñi ngi koy seet tali bi moo fa jiitu am na dëkk bu ne fii ci wetu suñu Cheikh Aliou ñu koy wax tey ba ca kan ba mu fa demee lam nam ko waxe bu ma ko sëriñ bi mayoon danaa ko dinaa ca jaar waaye làmmiñam moo meloon noona daa ñëw ne leen jikkoon naa fi daaw jeeg déggoon seen ndey mooy dégg ndey dellu si fi daaw déggaat seen ndey ren jii ma ñëwaat fi ngir fas yéene dégluwaat seen fas yéene déggaat seen ndey ah, ku fekke mooma nettali mu ne ko ñu ne ko ab raay lañ bëgg mu ne xaay ñëpp jóg taxaw di tàccu mu ne du ngeen ko am ndax da ngeen fay impo ni ngeen ko war a fayee téeméeri at ak ñett fukki at doo ko jënd benn kilomètre raay asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu déglu tuuti alaaji ñu toog ñu toog sëriñ bi ñaanagul ñu toog ñu toog waaw sëriñ bi dafa yónnee léegi ay cant yu mu yónnee ci daayira yi